jërë ngeen jëf mbokki internet yi Live Dakar 221 si topp ki ñëw ak yéen acte di sóor li si gën a fes rek doole ak kooke di président la république di Macky Sall askan wi nag wala yéen kaay yu bëri bëri nag sampi question di ka laaj nag li mu def rek moom moom président Macky Sall wala rek dafa xamu nag ginnaaw rek ba mu taxawee ko kooke di Khalifa Sall réew mi ñëpp nag doon ko méttilu ak di ko naqarlu ginnaaw si nag mu tase kooke di Awassi Kiti taxaw ak moom Fatou ba tax na askan wi ñëpp nag di ko ñaawlu bu baax a baax kookee di xalifa Ababacar Sall man naka nag ah, ah, caravane ba mu def doon def rek foofee rek sa Matam ñu daal di koy doxale rek daal di koy arrêté boobu la caravane ginnaaw sa rek sa la wàcc rek li nga xam ne moo di ay tànkam daal di dox rek àggale li nga xamante ne si nag moo di ab ah, caravane ñooñee day ex waa Pastef ñoom nag militants yi sympathisants yi fore foofee si Suisse ñoom nag la sa gën a fes ñoom nag dañoo jël rek ab camion bu mag a mag jagleel ko rek kookee di président Ousmane Sonko mu waajale ko rek la nga xam ne moo di ab campagne yem loole nag naam bu ne mas nañ kaa gis it euh, mu doon ab kabiyo bu mag mag boo xamante ne ne rek jagleel nañ ko ko ñu waaja rek li nga xamante ne si ne rek moo di seen campagne élection yu ñu dëgmal 2024 mën na ne sax boobee ko kabiyo mu nar rek yanu li nga xam ne moo di seen i euh, sunu réaction ñuy topp saa su ne wérante abonné partage like